Aminata Touré ak euh, Mansour fay nga xamante ni tay woon je pense que délibéré bi tay lañ ko puusoon tribunal bi nag daal dinay décider relaxer pur et simple ki nga xamante ne moo di madame Aminata euh, Touré dite euh, Mimi Touré pour sa bonne fois donc loolu je pense que day wane rek ni que Sénégal am na rupture Sénégal rupture bi nga xamante ni Euh, ñu ngi ko doon bëgg depuis lors wala rupture bi nga xam ne ñu ngi ko doon laam-laamee depuis lors am na parce que nag Aminata Touré dem na procès ak euh, Mansour Faye ñu daal di koy relaxer pur et simple loolu euh, benn pas bu important la ci li nga xamante ni moo di la liberté d'expression ak tey jii justice boo xamante ni tey jaar jaar na yoon alors Aminata Touré li tax ma bëggoon a def taaw seetlu ci kaawam bi mooy maanaam Mansour Faye dafa sexal boppam sénégalais yi ci man li ma gis parce que tey boo gisee ci procès bi Aminata Touré fenn la la ngaamu mooy rapport cour des comptes bu juge yi def ñoo épinglé Mansour fay léegi bu fekkente ni juge yi ñoo def rapport boobu noonu ñu ne Aminata Touré li nga wax tegoo ko fenn ça veut dire que kon juge yi lañuy ñuy remettre en question seen liggéey mais heureusement ba comme que moom rapport yooyu noonu la évoqué rapport Cour des comptes yooyu noonu je pense que je me dis que c'est l'occasion pour le procureur de la République mu daal di autosaisiru lijjanti le cas Mansour Faye une bonne fois pour tout parce que sénégalais yëpp ñu ngi koy wax ñii ñu ngi koy wax ci kaw ñii ñu ngi koy wax ci suuf te li ñuy évoqué tout le temps mooy rapport Cour des comptes comme nag rapport daal na koy épinglé moom mu dem sexal boppam justice sexal boppam sénégalais je vais dire sax parce que nag boobu ba tey ñu ngi naan 1000 milliards 1000 milliards Covid 19 donc euh, yow nit ñaa ngi wax euh, demoo làqatu ji euh, demo xool tey jii naka ngay def pour sénégalais xaw la fàtte tuuti parce que nag tey bu ñuy wax Mansour Faye benn mérite lañu la mën a am mooy c'était le beau-frère du président Macky Sall donc tey bu fekkente ni yow nit daal dina lay joxañ baaraamu tuuma. ne dangaa dilapité suñu xaalis dangaa muucu suñu deret danga lekk suñu alal yow amoo lenn looy def lu dul dem di ko yóbbu si yoon di ko porter plainte je me dis que danga sexal sa bopp yoon donc tey je me dis que euh, le procureur de la république mën na ci autosaisir pourquoi pas mën na ci autosaisir c'est l'occasion rêvée bu ko defee ñu def ci ay gëstu xool tey jii liñ doon wax depuis lors nu mu demee ak rapport bi nga xamante ni tey Cour des génne na ko ñeel Mansour Faye nu mu demee sur le fond bu baax a baax daaj yi ciy tudd nu mu demee entre autres entre autres loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne lu ñu war a mën a saytu la mais on sait que ay changement mi ngi am am na ñenn ñoo xamante ne tey ñu ngi leen di dégommer am ñoo xamante ne ñu ngi leen di fal et donc. Euh, Euh, on attend de voir mais je sais que les choses vont changer parce que nag daal di nañuy annoncé ak jot nañ l'information selon laquelle d'ici quelque temps rek ah xëy na amuñu euh, date exacte bi mais d'ici quelque temps dina may ay poursuites yoo nga xamante ne dina tukkee ci rapport yooyu noonu mais nekk na loo xamante ni daal euh, sénégalais yi euh, namm nañ ko te si nañ ko bu baax a baax donc bu ñu paree ci loolu ñu wax ci loi d'amnistie bi nga xamante ni li war a mën a tax ñu abrogé ko parce que nag loi d'amnistie bi tey lu jig njaag mooy njaag te Sénégal dafa euh, jóge ci selebe yoon comme ni ma ko tàmm di waxee Sénégal dafa nekk ci euh, benn mm, euh, stade boo xamante ni sénégalais yi pour ñu fàtte en tout cas man par exemple pour mon cas tey ce matin comme je le disais à la télé bi ma xëyee duggu YouTube chaîne bu Xalaat TV di seetaan documentaire bi nga xamante ni xalaat TV def na ko ci euh, maanaam les victimes de Macky Sall entre torture emprisonnement massacre ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey sénégalais yi dund nañ ko sama xol dafa jeex takk takk takk takk takk c'est-à-dire bu ma fàtte woon sax vidéo bi ma seetaan dafa mel ni yëf yi tay la bi ma gisee euh, sa kenn ci man di coromaxu Mandela di tur ay xéewal j'ai pas pu retenir mes larmes de même que mère Amédia entre autres détenus yu nga xamante ni tey bu ñu lay wax li ñu dund dafa metti donc yooyu yëpp dafa nekk ci loo xamante ni il faut ñu revenir si donc euh, je pense que urgence la urgence la ngir ñu dissoudre li nga xamante ni moo di l'Assemblée nationale ci nu mu gën a gaawee man damaa bokk ci ñi gëm loolu nu mu gën a gaawee ñu dissoudre cette assemblée parce que man bokkuma ci ñi gëm ni Ousmane Sonko war naa mën a dem ci kanamu assemblée bii ab Abdou mbaw nga xamante ni tayee naa bind ñetti phrase yu jub di ko wax di ko expliquer quoi que ce soit naan ko Sénégal fii lañ ko bëgg a bëgg a yóbbu wala Macky Sall lii la fi bëggoon a def loolu bu ko defee tamit ab Mbow mbaw ce qu'il en mesure pour répondre ko réponse boo xamante ne ñun sénégalais yi dinañ ci mën a jëlee jàngat lu ñu war a mën a def taxaw seetlu la est-ce que lool mën naa ne donc man damaa bokk ci ñi gëm ni assemblée nationale bi comme que le président Bassirou jomaay fay bind na ab bataaxal jox ko conseil constitutionnel ngir laaj ko ban date la xalaat ni moo baax ngir ñu daal di dissoudre cette assemblée DPG bi mën na xaar mën na xaar xaar ba ñu dissoudre assemblée bi am ay député yoo xamante ni dinañu refléter tey bëgg-bëggu askan bi député yoo xamante ni les députés du peuple les vrais nag la ñuy doon bu ñu demee dinañu wax ñàmbatu askan bi par exemple le premier ministre Ousmane Sonko buy wax dinañu ko déglu attentivement parce que askan bi moo leen ñor waaye du nekk ni dañ fa nekk pour lan applaudir duñ fa nekk pour lan député Macky Sall la wala député diw loolu moo war a jeex Sénégal donc man je pense que urgence la euh, comme euh, le président bind na conseil constitutionnel pour laaj ko ban date moo baax ngir ñu daal di mën a dissoudre cette assemblée bu conseil constitutionnel répondre rek ñu mën a jublu ci loolu mais je ne vois pas l'importance tey de précipiter les choses pour Ousmane Sonko mën a dem euh, dissoudre euh, pour mën a dem defi ji li nga xamante ni mooy PD DPG bi déclaration de politique générale parce que na booy wax ak ay nit da ngay wax ak ñoo xamante ni li ngay wax tab tabbiwul ci nopp ku tëx li ngay wax dina ko dégg dina nekk en mesure tontu la ci xel nga wax ak ñoom ci xel ñu tontu la ci xel mais pas koo xamante ni tey mënula tontu lu ñaari phrase parce que loolu lañ fi gis gis nañ dem ba communiqué bi nga xamante ne Ousmane euh, Abdou Mbow bindu na ko nañ jël feuille assemblée nationale pour lan nan Guy Marius Sagna je ne t'ai pas posé une question maanaam laajuma la moo ko toggee loolu la wax euh, Guy Marius Sagna Abdou Mbow laajoo Guy Marius Sagna waaye ñun ñoo ko laaj Guy mari Sagna c'est le député du peuple il représente les Sénégalais dignement saa su taxawee wax la di nga sentir ni am na ku la représenté ci péncu ndaw réew mi gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koy def euh, à la CEDEAO kon Abdou Mbow yow laajoo gii mari Sagna waaye ñun ñoo ko laaj ñun ñoo laaj gii Et je suis sûre que Guy, waxut ak yow pour tes beaux yeux non non non non et c'est pas au premier ministre Ousmane Sonko ou à Bassirou Diomaye Faye de te répondre déedéet député nga Guy Marius Sagna député la bu ko neexee mu tontu la te Guy Marius Sagna xam nañ ko ci pertinence am xam nañ ko ci bëgg gi nga xamante ne bëgg na ko réewam laajoo ko waaye ñun ñoo ko laaj Guy Marius Sagna dafa bokk ci ñi war a àddu ci réew mi fi mu ne nii ndax bi mu méttee la ko sénégalais gis ba tey mu seeju kon man je trouve impertinent euh, communiqué bi nga xamante ne bind nañ ko demb daal di jël en tête assemblée nationale daal ko ci def au nom quoi sa ñaari phrase yooyu génnee ko pour lan Guy Marius Sagna c'est le député du peuple toog léegi je pense que bu ñu demoon pare